cinq mille lay jar ku amul njëkk fi amul feebar dama demee hôpital da ngay dee mhm. te loolu la askan wi gën a xaar pour gis nga fi mu ne li ñu mel ne bëri na ñoo xam ne bu Ousmane Sonko woote ñu génn lu jëm ni Ousmane Sonko moo ah. àddina moo leen poñe waaw parce que dafa am lu ñuy dund loo xamante ne gis ñu fenn fuñ ko mën a secourir te ñi nga xam ne ñooy way politique yi mm. ñu fal leen wàccuñu sur le terrain dañ waxuñu président bi dëgg parce ñoom dañ leen fal la ñu lekk la ñu lekk rek toog léegi milliards yi amuñu benn contact ak population yi tudd nii waaw milliards milliards rek la ñuy wax boobu am na sénégalais yoo xam ni kenn du ma démentir te léegi ñi nga xam ne président fal na leen ban njëriñ la ñu amal askan wi jaguñu ne dañ leen gis sax da ngay gis koo xam naan député Mbëlëxe la wala député euh, ginnaaw suñu dëkk ba waalo mais waa dëkk ba wala laa gi naa xamuñu ko Dakar ngii la ñëw maris jënd fi këram mm. toog fii di weer bu dee mu fayoo xaalisam lekk ko te loolu taxul ñu fal ko député peuple la fa war a nekkal mais war fi nekkal parti. ministre yi ñu fal liggéeyuñu kenn ku dul seen i bopp. nañuy dimbali askan wi di leen jegeñ di xool population bi lu ñuy liggéey lu ñuy sonn lii ma la wax am na cere nag deru nag bu ñu waroon weer bu njëkk dañ ko xoos ba mu wow. xoos ba mu wow. togg ko cere jël ñebe def ko ci. dama laaj léegi ndax ndóol moo ko waral wala dafa fekk loolu. ndóol la non ndóol la. réew mi ndóol boo demee. li ma wax ca cosaanu président Macky Sall. Oh, oh ci Fatick googu seen biir dëkk yooyu dama wax dëkk bi pour réserve dama wax dëkk bi. waaw moo tax ma ne ci cosaanu président Macky loolu sax dañ ko gisul. cere jooju ñuy gis ak même léegi lan moo tax banlieue bi yëmbal bi nga nekk nii li fi gën a dox xam nga la la. caak rek soow koñ bu amul neex soow amul. waaw dëkk de. caak rek soow la ñuy dundee. du bëgg dañ la naan c'est bien c'est alimentaire dañoo xiif dañoo amul leneen amuñu leneen cent franc la deux cent te léegi sax cere ja meere jaayatuñu ko de bitig yee koy jaay takk cent te li ma wax yéen ñëpp dégg ngeen ko billaahi wallaahi tallaahi dëgg la am na fi. ah koñu coom am na fa. am na si am na te te nguur gi bu ñu bëggoon noppiloo opposition bi fi nekk ci opposition bi mais bu ñu doon dañoo doon jublu bii mooy. lii mooy opposition bi c'est-à-dire xeex bi mooy wax ji mooy. Oh. président Macky Sall dafa am inégalité sociale bi dafa fës ba dafa ëpp ba nga xamante ne ñoom seen nit ñi nga xam ne ñoom la dañu arrogant réew léegi te bu ñu communiquer population bi la war a wax. léegi monsieur Guèye ci ci information bi balaa ñuy dem moom nga baal ma rek. Mhm. Euh, président dafa am ñu koy jox ay renseignements même lu ay ministres am. Mhm. ay renseignements généraux. Mhm. tey boo demee ba xam am possibilité xam li xew ci dëkk ñu xiifee. ñooñu est-ce que kon ñu ngi koy def lu mu war. man na ngay su ma jege woon dama ko koy wax mais jege wu ma jot ci président moo mën a jot ci yow mais mënoo jot ci moom. mais ña koy informer lu ko neex dong lañ koy wax. Oh président, non, il n'y a pas de problème. Oh, cette population-là, oh, il n'y pas problème. Tout va bien, ils problème de l'eau, mais C'est non, dans le de Bogoudi, mon tal de ce homme. Nga tourné gis ko Aslem Guédiawaye mu seet si Pa Thierno Cissé. Jékki-jékki dugg ci otoom nëbatu wàccee vitre bi président Macky Sall ñëwal yëmbal benn baraak buun. Ah, Kër Massar wax naa ko fi de. jël benn bu banalisé bu simple boo xamante ne kenn du la xam. Hmm. ngay wër quartier bi ñu bind neex soow nga taxaw rang lay doon. Mhm. konoon couvrir. léegi boo gisee président déjà loolu bu mu amee rek ñu bëgg ñu indi ay problème couvre-feu ay problème tension ay xeer nit ñi dañu loolu mooy tiital. Ah. ndax fi mu ne nii dañu stressé boole ko émeute boo xam ne kenn ku nekk boo xëy yaa am na maire yoo xam ne ñoo yore kër yi. seen pañe la ñu yor. paa bi dee na wala retraité na. Mhm. bàyyi fa booy xale yi liggéeyuñu. maire bi su xëyee ay pël futa nekk ci marché yi xaalis ba am boo ñëwee ñu jabal la deux mille cinq cent bu maire bi jaayee ba am valeur 3000 delloo ko 2500 1000 francs yi mu dajal ndugg ma ca ngoon mu dem booy ba demoon euh, ba village yi ñëpp daw nañu ñu ngi ambulant Dakar boo gisee président Macky Sall loolu mu war ko saytu dem ci baan yi parce que wax nañ ko fii. mais non nga gis ko bu taal otoom. ànd mais ñu ci rapport de force lañu nekk. non non laa wax parce que comme ni mu ko waxee accessible ñu. jàppale wuñ la nga xam ne moom moo ñel askan wi. Mhm. li muy wax ci banlieue yi ak leneen kenn mënu ko dindi parce que loolu moom mooy réalité bi nga xam ne. Mhm. non ñun sax léegi boo waxuñu ko pour dénigrer ko waxuñu ko pour discrédibiliser ko. dañuy wax li réalité la réalité bi ñu dund aujourd'hui. lu mu liggéey lu baax boo ci duggee sa xol day sedd. terre bi rafet na. Euh, euh, euh, pont yi. terre bi bu paree macha allah macha allah rafet na. Ah. boo demee jam ñaajo da nga naan Dubaay nga nekk. wala seen affaire ministériel ya moo tax pauvreté bi di gën a extrême te mu am benn couche boo xam ne benn côté ku ci am sa manifestation fa ngay dem. ñu manifester la bu ñuy dee ñooy dee. ku ci am sa kii fa ngay dem ku ci am sa tiseel yooyu joxe wala xaaj boobu ñoom ngay dem ñoo ëpp lu ñuy voté Pikine Guédiawaye Kër Massar Yëmbal Boune benn baraak. dafa war a gën a fexe ba impacter le pouvoir d'achat. fexe ba set cette croissance ma mooy lan. waaw ñu njëgul lekk gi. ku ñu ko wàññil ak paj mi. paj mi paj mi ku ñu ko wàññil. ba bu ñu xëyee mën a am fu ñuy dem ku xëy suba au minimum boo duggee ci bitigu naar am sa benn 800 francs sax am ci ceeb ak maxal ko yebal bi lu ñu gën a rey ngir yàlla chinois yi. yaboy ba kay léegi moom. chinois yi jeexal nañ yaboy bi ci ko rato nañu géej gi. ay waay dimbal leen ñu ci chinois yi lépp boo demee Sabadola teg nañ ko pour réer Sénégal bii di ñëw na mooy Sabadola <laughs> ngir yàlla autorité de défense et de sécurité yi dem leen Sabadola ngeen rato ko ngeen nettoyé ko. Hmm. li ma gis Sabadola. Hmm. dafa mel ni réew mu toog ci poudrière. billaahi wala te yaa ngi koy wax thématique bi. maa ngi koy wax kenn du ma faale. Ah. nañu dem Sabadola orpailleurs yi ña nga fa di gas ay nationalité yoo xamante ne malien la burkinabé guinéen sénégalais sax nekkuñu fa dañoo dem ba créer seen i village fantôme yoo xam ne ñoom ñoo koy gas ña nga fa fa la ñuy juddoo yor i doom ña ngay rayante moo am ca ICS ngay def fa demee da ngay defee président jëlal hélico la main d'œuvre locale jëlal hélico nga survolé ko nga xool sa bëpp nga xool li ma la wax dañuy gas mel ne ay janax yu nekk ci pax di jaay chinois yaa nga fa toog yor xaalis bu bëri di ko jëndante ni ñoom a ko jënd mel na ñun danañ toog suñu Sénégal foofu du ngay mel ay étranger benn bijoutier bu mën a taxaw ne la am naa fa deux grammes d'or bu génnee si or Sénégal bi waxu la dëgg te ñaata tonne d'or la ñuy nañu xoolaat suñu revenu yi nga xam suñu ressources naturelles yi nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp ñan lañ ko gis nga chinois moom accord bâtiment investissement ay tali mais lépp loo xam ne ressource halieutique la boo ci dugalee chinois mu yàq ko rey na rey nañu Rwanda ba ñu dàq leen. dëkk yëpp Sénégal di accepté leen chinois bu la tabaxalee stade ne la wóor ne fukki stade ak juróom dana ko rëcc ko su suuf. te doo balaa nga ko yëg. te it ah, seen i nit la indi. maa la ko wax duñ la jëndal dara. seen biir la ñuy jëndal de. seen i néew soo doo ko gis. comme libanais yi ni ñuy def. maa la ko wax mu doon ñaxtu fan yi ci China Mall na benn bu gën a mag bu ne Sénégal ne waaye ko moom mu ah. ko doon ñaxtu ñenn ñi ànd ak moom ñenn ñi ànd ak moom noo ko gisee voilà pour hmm. commerçant yeeg yooyu mais ñun suñu commerçant yi ñi ngi def lu ñu mën tey état bu fekkoon ne taxe yi daf ko jël yombal ko doomu réew mi comme ni mu koy rombalee ñi nga xam ne ay importateur extérieur lañu hmm. di ñëw fii kon dañuy romb fii am nañu ñoo xam ne am nañu moyen wu defar ko mais tax yi leen teg tey ji emploi bi président bi taxe yooyu ñuy def impôt nañ ñëw ci entreprise ne leen entreprise bu nekk chaque nit boo embauché rek. wàññi naa la ci taxe temps ak temps ah. ñu xool. pendant un an. chômage bi nan lay demee. man bu ma doon déglu mais bu ma doon déglu réew réew mi dem. du wax sax ci yii. léegi yaa ngi wax lii yaa ngi naan les forces de défense et de sécurité thématique bi fi ne nii lan la mooy seen taxawaay ci pétrole beeg gaz ci la ñuy ubbeeku waaw est ce jàpp nga ni thème bu mel noonu tamit épousé na fi ñu ci toll nii ci la ñu jëm nii ci 4 avril mais moo tax ma wax waxi Sabadola ah parce que force de défense et de sécurité préservation des ressources naturelles mooy thème ak défense et de sécurité. dañu am devoir fii réew mi toll tey. Mm. pétrole bi feeñ gaz bi feeñ zircon feeñ lépp loo xam ne feeñ Sénégal am na toute organisation bu ñu am rek dans trois ans ñu raw Dubaï. Mm. mais lii ñu xam ne ñooy soi-disant des politiciens. dañ ko nar yàq ba mu yàqu yaxet kenn du ko jëriñoo. parce que tey réew mu yoolu feeñ am na ñoo xam ne ña nga taxaw ci àngal ba di ñaan yàlla bu loolu yàlla yàlla lépp yàq. xam lu ñuy xaar ku ne damay sànni xeer ñu la jëlal fetal. Hmm. wax waaw am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy ñaan dëkk bu tàkk. te suñu dëkk jàppoo ni kon ñoom ñu ngi infiltrer l'opposition parce que li tax ma wax loolu day duggaale. ci barki Dembo Ndiaye procureur la mu wax nañu teg loxo. Hmm. xam nga naan ñi dañ doon waajal li da dégg ñu wax ay cocktail molotov ak yu kenn xamul naan derrière sax dañu xool opposition boo xam moo gën a nekk en vue ñuy fexe nu ñuy def ba ay nitam infiltrer leen jàppaleen ci di yow mi nga xam ne def nga Libéria xam nga la fa xewoon Mali gii demoon nga également est-ce que jàpp ngeen situation yi toll nii saa yu fa réew teelloo lu mel noonu mën na am. maanaam ñu infiltrer am réew. l'opposition tolloo ci. te duñ ko yëg xëy bu tolloo ci yéeg di développé wu. bu ñu bokk bëgg ko te ñi bëgg néew ñi bëgg sa euh, réew. Mm-hmm. nekkul ci opposition ne gis nga fi mu ne réew mi tàkk. Mm. am na sax pays occidentaux yoo xam ne tey Sénégal arrangé wu leen. Mm. ñalaa jox arrangé ku mel ne France. Mm. bakkanam yëpp mooy Sénégal am jàmm. Mm-hmm. France mel moo ñu des moo leen dese ci jàmm parce que seen intérêt dafay nekk carrément ñu am na une coopération boo xam ne ce n'est pas bilatéral du tout c'est unilatéral tubaab bi jox nañ leen. unilatéral unilatéral. <laughs> on a tout donné à la France jusqu'au sacrifice suprême. kon ndax am nañ indépendance. de de de de de de de de l'esclavage. en passant par la première guerre mondiale c'est comme si tontu Ousmane Sonko tontu kenn ci ku ñu wax ni émissaire la bu bàyyeekoo. Euh, ca Macron ñëwoon gis ak moom de manière secrète Sénégal dégg ñu bëri yëguñu ko. Ah. mais waxtaan bi fa juddoo mooy c'était pour voir un peu la position de Ousmane Sonko par rapport ak lu ñu jëm. asymétrie la wax. Mhm. maanaam relation asymétrie dafa bëgg nag ñu juge ci ñëw ci relation symétrie. non euh, xam nga loolu day répondre li nga wax sànq ci taxawaay. ñu ne da nga yàgg. réew li ñu boolee ci l'histoire dafa bëri. Mhm. certes du histoire boo xam ne lépp nice. Mm. déedéet li ñaaw moo ëpp lu rafet li jàpp nañu suñuy maam jaay leen. d'accord mu sedd. Mhm. ñu jël suñuy militaire yóbbu leen guerre première guerre mondiale si guerre boo xam ne laaluñu ci. Mhm. premier man je suis président des descendants des tireurs sénégalais. oui je suis mieux pour expliquer cette histoire là ce qui s'est passé. Mhm. ñu def leen Sierra Leone première guerre mondiale. deuxième guerre mondiale bi ñuy lekkaram seen prime quand caaro leen yóbbu rey leen. rey leen rey jël rescapé achevé leen à l'hôpital kenn waxu ci. dossier Thiaré bu ñëwee 35 mort 35 c'est pas vrai. ñaata mort la 1650 ñoo embarqué Morlaix en Bretagne expi le premier massacre euh, le le 20 massacre bi nekk le premier ka ko def mooy le général Marcel Dagnan et Yves Bobo Bessel waxtaan ak ay gendarmes yu jógee Saint-Louis Thiès ñëw fekk gars yi à 8h35 ci esplanade bi massacre leen parce qu'ils réclamaient leur prime. Mm-hmm. mais prime bi rek taxawoon ñu réclamer leen. li ñu leen wax ñu massacré leen c'est dangereux parce que dañoo démystifier dañoo démystifier le ñoom ni ñu doon ni ñu doon la seconde guerre mondiale si on laisse ces gens là partir en Afrique c'est fini c'est fini on sera on va day éveiller des day am kenn dootul mën te ni mooy premier contingent il faut les mater bu ko defee on n'en parle plus li nga wax ne dafa mel ni Cheikh Anta Diop bi mu paree foofu te war ñibbisi ne day dem jàngale université ñu fexe ba ba gàntal. paa yi ñëwoon fii pour defaraat armée bi ñu bëri leen bu leen ñëw ñu am ñoo xamante ne dañu préféré ñëw servir le Sénégal bàyyi intérêt avantage yi leen France jox yépp